Merci de nous recevoir chez vous. C'est un réel plaisir de vous retrouver comme tous les matins. Nous sommes le mardi avril 2024 ñu ngi leen bu baax baax te di leen ziar yéen ñi saxoo di wétalikoo 7TV télé bi ñu niru ba noppi ñu dajale ñëwaat nañu pour l'avant-première de la mi-journée et euh, deuxième incursion de la semaine ñu ngi leen di bu baax baax fu ngeen mën a féetee rek tey wétalikoo télé bi mardi la ñu nekk talaata la team est Birama Birama bon repos à toi en tout cas namoon nañ la man namoon naa la dama defoon da nga ma wéttali tuuti avant après koor gi nga wéttali ma tuuti doog a dem congé mais n'empêche profites-en ah et repose-toi vraiment doyen Mamadou Sy Albert bonjour. maa ngi lay hmm. a baax. di profiter nuyu euh, Birama aussi. Hmm. c'est vrai qu'il se repose euh, <laughs> qu'il se repose bien. waay di Adama di nuyu waa kër gi. di hmm. nuyu aussi suñu invité yi. jërëjëf doyen Mamadou Sy Albert Adama Fall mu ngi yeg si léegi mais en attendant nos invités sont là waxoon naa leen ko démb annoncé woon naa leen un peu la couleur ne leen nag xam ngeen ne mënul ñàkk faa ma dugg ci sama <laughs> ci sama domaine euh, doyen xam naa ne tey Birama bopp bi dina métti trop parce qu'il aurait bien aimé toog fii jàkkaarloog man mais tey boobu dina ko rëcc euh, notre première invitée Mariam Koundoul ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la dalal maa ngi lay nuyu di la gërëm di la sant di nuyu doyen Mamadou di nuyu aussi Soxna Diarra. Mhm. maa ngi leen nuyu baax di leen remercier bu baax si dalal jërëjëf dinañu ñëw léegi yaatal ci wet bi maam Diarra Ndiaye Sobe xaw ngeen koo miin tuuti ci kër gi maam ñu ngi lay nuyu. Mhm. gi yëpp. Mhm. di leen jaajëfal ci dalal bi. di nuyu sunu doyen c'est toujours un plaisir de vous retrouver sama sœur nekk sama ndijoor. e euh, di ko dalal moom tamit. et je fais un petit coucou à Birama. Euh. euh, il va nous manquer aujourd'hui. Là, il va nous manquer aujourd'hui. <laughs> moom Diarra Ndiaye Sobel euh, ñoom ñëpp dinaa ñëwaat ci ñoom léegi mais doyen ni ñu koy defee saa bu ñu xëyee dañuy ànd ak waa régie xool li nga xam ne moom la yéen kaay yi xëyee tey jii léegi nous sommes le mardi 16 avril comme je disais tantôt 2024 si c'est bon du côté de la régie ñu dem xool li yéen kaay yi xëyee tey bu ko defee ñu dellu si waat. ec Vox Populi la ñuy tàmbalee ziar présidentielle à Touba et Tivaouane Diomaye perpétue les usages loolu la ñu xëyee presque tous les journaux presque tey loolu la ñu xëyee donc mu ngi noonu Vox Populi yi ñu dem ci beneen enquête Bassirou Diomaye Faye surprend son monde ça c'est vrai <laughs> Bassirou Diomaye Faye à Touba et à Tivaouane pour ses premières sorties ñoom la dem ziyaare ji mhm. dem xool beneen le pèlerinage de Diomaye ça c'est le quotidien le pèlerinage de Diomaye à Touba et à Tivaouane d'accord la Senghor aussi en médaillon ci kaw foofu on va en reparler on doit de l'histoire là des biens du président Senghor on va en reparler ayca ñu xool beneen <laughs> l'info Bassirou Diomaye Faye en talibé à Touba BDF d'accord <coughs> presque tout le monde en parle la tribune aussi Diomaye à Touba et à Tivaouane promesse à Serigne Mountakha et recueillement à la euh, oui la zawiya de Serigne Babacar d'accord ça c'est la tribune qui revient aussi sur euh, l'APR qui sombre dans le coma d'après la tribune l'APR sombre dans le coma 26 tonnes de produits euh, impropres à la, à la, à démb jàpp nañ ci ñu bëri waa service d'hygiène et man li ma jaaxal nag démb mooy doyen au ñu jàpp nit ñi ci mbedd mi mais ñi doon jàpp ci magasin yi la ñu nekk ñoom ñooy jaay des produits qui sont impropres à la consommation périmés donc doy na waar ok madame ah oui l'immigration clandestine tamit dellu si waat na ci tribune avec euh, ceux qui ont été interpellés à Mbour 21 Sénégalais 3 Gambiens et un Malien interpellés par la gendarmerie de Thiès dinañ ci dellu si waat les derniers dérapages de Macky Sall ça c'est dans Libération Touba et on reparle de, de la cocaïne qui a été saisie aussi Sud Quotidien Diomaye clone Wade et Macky <laughs> topp na seen d'accord ok même Diomaye rend à Touba ce qui appartient à Touba ça c'est Direct News mm -hmm. les libéraux s'expliquent <laughs> critique Diomaye Faye déchausse ses critique les ministres sous la coupe réglée du premier ministre ah ouais ça c'est critique mm -hmm. pourquoi ils ont dit bon ils ont du pain sur la planche mais peu de manœuvre ok on va ko voir ça jeex na. loolu mel ni jeex presque tous les journaux ont parlé du pèlerinage entre guillemets de du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. waaw c'est normal euh, euh, président Diomaye c'est sa première visite. Mm-hmm. que mu dem Touba Tivaouane. waaw lu ko lu ko waral euh, fii la ko fekk. Mm-hmm. Macky def na ko Abdoulaye Wade def na ko ci suñu tarixa aussi depuis Senghor ba tey ji mm-hmm. chef d'état Sénégal dafa am euh, dafa am place ci Touba wala Tivaouane mm-hmm. ci église suñu régime nag lu euh, baax na ñu fàttali ko mm-hmm. euh, suñu état bi état laïque la mm-hmm. état laïque mooy que chef d'état bi dafa war a sàmm diine ñun ci suñu société diine dafa bokk ci société sénégalaise mën nañu wax sax ci ciment bi la bokk état bi ni mu amee solo ci sujet sénégalais noonu la diine amee amee solo. Mm. donc diine ak état ñoom sa ànd. Euh, léegi euh, c'est vrai que Bassirou Diomaye xale la. Mm-hmm. mais suñu gisee taxawaayam buñ ko falee ba léegi am na yar ak teggi te loolu. Mm-hmm. Euh, buñ koy wax cest à am na fu mu jóge ci société bi la jóge. Mm-hmm. donc sa personnalité. Euh, ak valeur yi mu wane depuis bu ñu ko installé ba tey ji wane nag ko en tout cas ci Sénégal la jóge ci Sénégalais yi ñoo ko fal. Mm-hmm. et yaakaar naa luñ doon xaar ci moom la def. Mm-hmm. dem euh, ziar euh, les xalif discuter ak ñoom mais loolu rek doyul. c'est mm-hmm. c'est vrai que am na lu ñu lu ñuy xaar ci ñoom. am na depuis bu ñu ko falee ba léegi ñun nit ñi ñu ngi wax ne Sénégalais ñu ngi xaar ñu ngi xaar. mais nitu diine yi aussi am na lu ñuy xaar ci président bi. Mm-hmm. bon nee na dina leen dina taxaw Touba dina taxaw Tivaouane ak feneen ak feneen mm-hmm. pour jàppale les xalif mm-hmm. bon boobu benn pàcc beneen pàcc bi mooy que moom en tant que chef d'état dina am politique publique en direction de Touba Tivaouane église et cetera bon defe naa loolu nag euh, foofu lañ koy xaar ban taxawaay la war a am euh, ci wetu xalif yi benn ñaareel bi ban politique publique mhm. parce que quand bu ñu fàttali que problème euh, bu am Tiwaawoon bu am Touba yàgg na fi mhm. problème assainissement mhm. problème euh, éducation problème euh, sport problème politique publique ñu nekk Tiwaawoon ak Touba yàgg nañu joytu l'accès au service de base léegi gouvernement bu bees am na woon dina ñu xaar boo xool ban politique publique le gouvernement bi nar a am est-ce que dina àgg Touba Tivaouane est-ce que population defe naa daal njeexital bi lu ñuy xaat mooy askan bi mm-hmm. est-ce que dinañu gis njëriñ ci euh, gouvernement euh, Diomaye mm-hmm. maintenant euh, c'est vrai que bon les autres questions yu ñu doon wax pour man bon est-ce que ils étaient contre les confréries est-ce qu'ils étaient bon ça c'est de la campagne politique c'est mm-hmm. normal Mm-hmm. c'est c'est normal mais campagne bi moom defe naa daal weesu nañ ko tey ji Sénégal yi ñoo ko tànn. Mm-hmm. kenn mënatul wax que euh, Sénégal yi ay euh, tijaan lañu kot wala murid lañu wala chrétien lañu c'est tout le monde ki a c'est la majorité du pays. c'est le président de tout le monde euh, voilà le président de tout le monde <laughs> donc ñëpp ñu ngi xaar ci moom. Mm-hmm. que mu il a di je crois ci premier discours à la nation c'est que ñun suñu chance mooy. on est une société résiliente am na lu boole Sénégal yëpp tout le monde tout le monde le dit Sénégal euh, bon mënul am ñaari bopp mm. su bëggee indi indi ñaari bopp c'est sûr qu'il va pas passer tout donc yaa am na lu mu war a sàmm en tout cas mm-hmm. que Sénégalais yëpp ñu ngi xaar ci ci moom euh, donc c'est une visite importante bon protocolaire maintenant on attend la mm. la suite Bon, maintenant, les autres questions politiques. L'un des, des, journaux a dit, critique par exemple, critique d'Opné, Diomaye des choses, c'est des tracteurs. mooy li ngay xaw a wax li nga xaw a wax léegi rek. le Sénégal moo tëddee noonu. gis nga <laughs> par exemple temps temps Senghor. Mhm. nit ñi dañu gaaw a fàtte. mais ñu ñu sësoon gauche bi lan lañu doon ci gauche bi gëmu leen yàlla. vous êtes des athées que yéen faalewu leen euh, famille faalewu leen diine faalewu leen dara. Mm-hmm. Euh, Karl Marx ngeen gëm gëm. amul lu ñu leen waxul. mais mm-hmm. boo xoolee gauche bi plus tard. Mm-hmm. ñoom Bacci ñoom Dansogo et cetera et cetera. waaw les gens ont démystifié. que dans leur parti il y avait des athées il y avait des des musulmans des catholiques le parti politique au Sénégal musul nekk une seule. entité. Mm-hmm. po politiquement ñun heureusement je pense que loolu moo ñu sauvé. Mm-hmm. cest à mosuñu am parti politique ñu ne bii xeet la bokk code. Mm-hmm. wala bii religion code. ñun dañu teel a yeewu. bon boo gisee Abdoulaye wadd le dernier exemple que je citerai c' est Baye la am na amul luñ ko jiiñu fii ah. la am. mais terewul que les à vingt six ans d' opposition les Sénégalais ont fini par comprendre. le Pastef c'est la même chose c'est-à-dire que euh, différence bi mooy que paam yaru euh, ñoom euh, Sonko ak Diomaye diine bi ñu am mais gauche bi mësul am loolu cest à ñoom Pastef la ñu ci bari xamuñu sax lu xew France xamuñu xew États-Unis mais goos bi foofu la jànge foofu la màgge foofu lañ ko formé mm. soo gisee taxawaayu Diomaye bah, si tu te dis que ça c'est l'éducation mouride donc kooku mënoo yeewu rek nga ne salafiste te yoo xamoo sax lan mooy salafiste. tout à fait cest ci politique. on n'a pas de culture religieuse. Mhm. gis nga même les mourides wala les tijaana ñu xam dëgg-dëgg yoonu tijaan <laughs> bon nañ nañ ma baala ah. mais c'est vrai l'analphabétisme dafa bari on ne connaît pas notre religion. Mm-hmm, on ne va pas au fond. donc ñoom tamit ji ñooñu la ñu ay salafiste la ñu ay intégriste djihadiste mais tout ça aujourd'hui euh, en tout cas ça tombe à l'eau pour la bonne simple raison. Mm-hmm. que le PASTEF est le principal parti aujourd'hui au Sénégal. Mm-hmm. su doon des salafistes tu penses que Sénégalais dinañ topp salafiste ba yóbbu ko ci à pour cent. je pense que bon comme ni ma la ko waxee c'est des critiques c'est normal que que nga critiquer sa adversaire pour le déstabiliser. pour wàññi mais maintenant on les questions de fond son à venir pour moi. Mm c'est-à-dire que man li ma gisee en tout cas il les jeune en tant que président il a une ambition xaaruma ci moom rek mu nekk taalibe comme certains journaux l'ont dit. Mm. non dafa war a mot nekk. rupture la wax. maa ngi xaar que xalif tijaan ak xalif murid soo jëlee rek Touba sëñ yaa yàgg naa ko wax il a un projet pour Touba ça c'est clair nga nangu wala nga bañ ko nangu su gëstoo nu mu taxawee euh, éducation bi l'université l'école coranique le projet agricole l'assainissement l'ordre il a un projet bah, Bassirou, qu'est-ce qu'il va faire avec ce projet-là mm -hmm. Il faut mu réfléchir pour voir c'est quoi le projet état bi fan la war a taxawee projet Serigne bi ça c'est un mais deuxièmement le plus important pour moi c'est que Touba ne peut pas être une grande ville si l'État ne soutient pas Touba mmh. honnêtement il faut que l'État du Sénégal réfléchisse sur Touba dans cinquante ans c'est quoi tu as 3 millions d' habitants à Dakar bon xëjatuñu fii sur les 25 ans 30 ans qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de Touba pour mu nekk il faut une politique. Mm-hmm. ba Tivaouane c' est pareil. Mm-hmm. on parle de deuxième ou la prochaine capitale euh, économique du Sénégal pourquoi pas dans la zone de Thiès ou dans la zone de Touba. donc il faut que ñoom lu ñu xaar ci ñoom s'ils veulent vraiment la rupture il faut qu'ils soient audacieux. ñeme ko. non ñeme ko. Mm-hmm. c'est-à-dire que ñun ñun ñëpp on a on a les mêmes depuis 60 ans. <laughs> mais kenn ñemewul kenn on on n'ose pas Wade jaar na fii Macky jaar na fii bon chaque jongle. Mm. mais rupture bi ñuy wax. bah en tout cas je, on attend beaucoup beaucoup de de Diomaye de son gouvernement. Mmh. s'ils s'ils arrivent euh, à faire de Touba et de Tivaouane des pôles économique des pôles religieux. Moi, je suis certain que euh, le développement du Sénégal peut-être passerait par Touba et Tivaouane, les pôles religieux là. Mm -hmm. donc mënoon développer suñu réew bi sans les capitales religieuses. moi moi je, je n'y crois pas. Mm -hmm. que ñoom ils ont de l'autorité ils ont des projets ils ont la volonté. Mm -hmm. et puis sénégalais ñu ngi leen di déglu. seen gannaaw la ñu nekk des Popenguine même des Popenguine aussi. Et pour Pékin, non. Bon, je ne parle pas peut-être des. Oui, les pôles l'Église, par exemple. Ouais, l'église, le président Macky avait déjà commencé. La force de l'Église, c'est que ce n'est pas comme les musulmans, mourides ou, euh, ou mm. L'Église, est capable de produire. Mm -hmm. mm L'Église, c'est la réflexion. Mm-hmm. Mais nous, si nous avons moi je suis sûr certain qu'au niveau de l'Église, nga ne leen la politique de l'éducation de l'enseignement supérieur ouais, de l'emploi ouais, ouais. l'aménagement ñoom am nañu bagage mm-hmm. mais soo fa demul bon ñoom dañuy toog non duñu dem ci yow l'église a une place essentielle à, à jouer oh. chez nous bon d'ailleurs même toutes les craintes euh, qu'on a dans le Sahel c'est le, le, les problèmes religieux les mm-hmm. problèmes culturels les problèmes ethniques mm-hmm. je pense que église am na am na place bu baax a baax comme euh, d'ailleurs la la religion musulmane sans compter maintenant bon c'est vrai on oublie les intellectuels tout le bah, monde les intellectuels il a besoin de tout le monde en fait le président il a besoin de pense qu'on n'en pas juste le président d'une coalition wala wala d'un parti il a surtout on, besoin des femmes nag il doit pas ah oui non <laughs> non pour les femmes c' est un autre problème. ça c' est un autre problème. non c' est un autre problème par nu ñuy. yow noppi rek. ñu ñu ñu ñu tey rek ngeen doyal. tu vois ni la religion musulmane catholique là. c' mhm. est ñoom le nouveau pouvoir là il faut qu' il d' approche vis vis de la femme. c' mhm. est man li ma gëm Sénégal mënul dem san la religion. mais Sénégal mënul dem sans la femme. c'est pas sa loxo rek. Adama nuyoo goo. Adama nuyoo goo. Adama nuyoo ñu wax jigéen ñi yeggalee guñu nga commencé commenté Adama na nga def. maa ngi sant yàlla yaa ngi si jàmm. tegal foofu sa loxo nga ma ma jëm. maam Diar laay nuyu si yow <laughs> na xam ni rek. ñett lañ ci moom tey. Ah, ah. Hmm? tey dund na bàyyi nga fi. non ñeenti ngeen ñeenti ngeen. parce que doyen avec. Ah, waaw waaw ak suñu benn ak sunu benn he for she. he for she voilà. Euh, en tout cas euh, bienvenue Adama. Euh, man si à la une bi damay rejoindre bi di doyen wax. Euh, parce que en tout cas de personnellement damay rafetlu président di mu dem Touba. Mm-hmm. et jóge fa jaar ci waaw Euh, parce que tamit euh, euh, les chefs religieux kilifa diine yi fi nekk c'est des régulateurs sociaux mm. dëkk bi à chaque fois bu méttee dañuy dellu si ñoom te loolu je pense que kilifteef gi sénégalais am vis-à-vis de son guide religieux loolu bokk na aussi si loo xamante ni si fay na lakk yu bari si dëkk bi et donc euh, rupture bi foofu noonu muy benn lien boo xamante ni si gouvernement warul ñëw rek romp ko mais xanaa gérer ko quand ak modération et comme ni ñuy wax moom ñoom fi ne dañoo yor réew mi euh, ñuy ndey di seex war a tuddee ñaxaanaay donc euh, tëddee toog yamale ñëpp muy jàngu bi di Touba di Tiwaawan di Yoff ak euh, euh, di di di di Njaasaan Medina Baye euh, ndaxte loolu la ñuy xaar si ñoom mais boo li jëlee aussi pôle religieux yi dañu de c'est au la même ce de confrérie Mouride Tidiane Layeen Ñaseen dafa am aussi beneen aspect bu ñuy jouer si réew mi que c'est au niveau économique ak niveau social xoolal ñaata nit ñooy jóge di daw Touba par année ñaata nit ñooy jóge di daw euh, Tiwaawan par année appel laayeen bi bu commencé xoolal Dakar léppay bouché mm. euh, xoolal kii am na lu ñuy wax sancaan yi Touba village yi nga xamante ni xiif bi daf leen sonal yëpp dañuy dem dem daw Touba donc foofu am na benn euh, yaakaar boo xamante ni société bi am na ko te dafa am ay enjeux économiques ay ak ay enjeux sociaux hmm. léegi te loolu daf may indi si booy xalaat ci dëkk boobu da ngay xalaat assainissement da ngay xalaat salubrité da ngay xalaat sécurité hmm. parce que c'est des pôles yoo xamante ni dañuy accueillir toute la population sénégalaise hmm. donc il une dimension politique et une dimension sociale qui doit faire partie intégrante de la euh, planification publique mm-hmm. bu fekkente ni jël nga euh, côté religion teg fële nga indi côté religion comme ni ko professeur waxee ñun dëkk la boo xam ne dañu am lu ñu gëm ñi ñu ñuy musulman lan ñii chrétien lan euh, en majorité en tout cas boo jëlee musulman yi ñi bokk Touba ñi bokk euh, kii Canaba euh, euh, ñi bokk ñi ñi bokk fële ñi bokk Tiwaawan donc loolu lépp dañuy xool naka lañ koy régulariser et que ñu mettre ko en profit parce que ñu ñu defaraat rek ñagas-ñagas yi ñu ci amoon bu ñuy def euh, réconciliation sociale bi ñu wax mm-hmm. ñu commencé ci foofu parce que euh, ñoom tamit euh, am nañ seen partition boo xamante ni mën nañ ko jouer mm-hmm. ndax boo gisee une Touba université bi xalifa bi loxo mu nga sax bu ci ëppalewul hôpital bi loxo mu nga sax bu ci ëppalewul mm-hmm. Euh, ak leneen lu mu mënti ñëw sans compter les milliers de famille yoo xamante ni dañuy yaakaar si moom comme ñoom tooguñu rek muy dox comme ni niñ koy waxee euh, ñu ngi ñu ngi bay bay seen waar na leen jàppale rek donc euh, man aussi en tant que citoyenne sénégalaise dama koy dama koy rafetlu bu baax a mm. baax mm. waa di rafetlu tamit yar bi aussi parce que quoi diis ay sénégalais lañ mm. muy sa kilifa na serait-ce que ku la mag nga jox ko sa cër jox ko yar Euh, du wàññi ci sa kilifteef dara waaw waaw et nekk na président sénégalais yi ba pare mm. kilifa la ñu teg ko ko euh, ba pare euh, accepté ko ko tamit ñu accepté ko mais tamit mu xam ne kilifa la waaye tëddee ñaar kenn du wàcc sa ànd ñu dellu suñu valeur yi waaw ci suñuy valeur parce que xam na lu bari lu ñu jàngal man de dama koy xool léegi sax di di ko di ko ñimanka xaw ma lu tax maanaam waaw maa ngi lay delloowaat nuyoo di kontaan rekk ci li nga xamante ni moom la président Diomaye def ndax ci loolu lañ ko doon xaar ndax Sénégal dafa am nu ñu baaxoo ndax suñu kilifa diine yi ak kilifa aada yi moom lañu am gannaaw yàlla ndax ñi fi jaar yit defe naa ci tànk yooyu lañu aw kon moom tey bu ñëwee tax am taxawaay bu lu ñu def lu may rafetlu ko di ñaanal yàlla mi nga xamante ni moom moo ko jox tey réew mi mu def ci continuité ndax l'état c'est de la continuité tey bu ñëwee dem seeti suñu kilifa yi te ni mu ko defee Touba def ko Tiwaawan am nañu yaakaar dina ko def ci ñëpp kon donc duñu mën lu may saluer ko rafetlu ko di ko ñaan rek mu apporter ndax yokkute lañu ñoom rupture la ñu woote yokkute te yokkute googu ñu ngi koy xaar ci ñoom ñoom nee nan dañuy ñëw pour defar réew mi jub jubal jubbanti mais loolu mi ngi njëkkee d'abord ci ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñoo war a yor réew mi tey président jomaay nekkatul Diomaayu benn parti dafa nekk le président de tous les Sénégalais kon ñëpp la war a déglu kon tey bu solee dàllam dem Touba di fa jaare di fa ziyaare sëñ taxaa di ko ñaanal yàlla na ko fi yàlla yàggal mu ak wér du ñu mën a def lu may rafetlu ko vraiment parce que euh, président yi fii romb yëpp noonu la def kon moom bu ko defee da ko war a def waaw di ko ñaanal yàlla yen bi di xaar ci moom aussi mu mu wax rek mu def ko mm-hmm. ay résultats moom daal la ñuy moom la ñuy xaar waaw. ñëwaat ci yow léegi euh, Adama mën ngaa nuyoo léegi après a <laughs> dem ci thème yaakaar loolu. waaw ñu euh, nuyu doyen. chaque matin parce que il faut ñu lay ñaanal gudd fan yàlla di la bàyyi suñu kanam bàyyi defaraat xel gën a màcc xel bi ñu mën a taataan ci yow saa su ne mhm. di nuyu suñu soxna yi soxna maam jaara <laughs> ak soxna maram euh, di la nuyu yow sox sista Maria di wax ni tey moom euh, xam naa ni démocratie moom dama koy obligé nangu rek parce que tey mbirum jigéen nañuy wax te dañu am benn doyen boo xamante ne ci yéen la far. ñun nangul leen taxawaay bi rek. Euh, waaw mais il faut ngeen soppeeku <laughs> n'est-ce pas doyen il faut ñu am lu ñu changé ci ñoom du bari. maintenant euh, par rapport ak li nga xam ne moom la ñuy wax mooy la revue des titres damay ciy jund rek mooy li ñu doon waxtaane sànq que c'est pas une surprise pour moi ah qu'un président de la République dem Touba. dem Tivaouane du surprise pour man mi nga xam ni xam naa du république du fonctionner parce que république dafa dafa am temporel am spirituel. Mm-hmm. te su nekkee da nga gérer pouvoir temporel bi il faut nga dem lëkkaloog le pouvoir spirituel pour mën a avancer donc duggu leen c'est pas une surprise pour moi en tant que républicain parce que aussi li doon doon surprise mooy mu ñàkk fa dem su boobaa nag les mun mën nañ lu ci neex. mais que ñu xëy suba ñu ne ñu def na première sortie officielle vers Touba c'est pas une surprise et c'est pas une première ça ne saurait être première dans une république qui fonctionne normalement nag surtout la république du Sénégal donc duggule amul dara lu ñu ko ciy tàccu amul dara lu ñuy raw peut-être nag peut-être ñi nga xam ne dañ doon wax wax yu ñaaw ci ñoom jëmale ko ci ñoom peut-être foofu la ñuy xalaatee peut-être ñi nga xam ne dañ daan wax wax ju bon jëmale ko ci kilifa diine yi mm. ñooñu peut-être ñoo ñoo am gàcce mooy ñi nga xam ne dañ daan wax wax ju ñaaw jëmale ko ci kilifa diine yi te bokkoon ci ñoom ñi nga xam ne dañu dañu dañ ko contrôle yëkkati doon wax wax ju ñaaw jëmale ko ci ñoom ñooñu peut-être ñoo am déception mais ñi nga xam ne xam ne république nu muy fonctionner mënoo nekk président de la république te doo lëkkaloog ñooñu fa la parce que aussi suñu mënee bëggee am une stabilité dëkk bu stable ak leneen il faut que lu pouvoir temporel di nekk en étroite collaboration avec le pouvoir spirituel mm. donc loolu mooy nangam maintenant nag beneen jàngat bi ñu ci am mooy war nañ mën a xoolaat ñun suñu comportement par rapport au quand on est à l'opposition bien quand on quand suñu contre nit mooy du doyen doon wax war nañ ko mën a xoolaat c'est-à-dire contre nit ki warul tax nga tuddee ko yenn propos yi. parce que nit c'est typique c'est dangereux. ñoom it aussi war nañ mën a xoolaat seen taxawaay parce que ba mu posé acte boobu ñu baal ma rek dafa am ko def live sur YouTube mais amul lu ñu lu ñu yàqul suñu président de la République ci acte bi mu posé dem Touba euh, te loxo xalif bi am na ci ñoo xamante ni dans ce pays là wormaalu ñu suñu kilifa diine yi. et et et c'est pas bon. warul demee noonu parce que nous sommes une société à part. mais la mais la majorité dañ ko rafetlu. la majorité xam nga la majorité loolu lañ doon xaar. li ma naan les chiens continueront gis nga gis nga gis nga soxna Maria Sénégal ay nit ñu baax rek fi ne nga ak fii boor boo mënti féete. Mhm. ay nit ñu baax parce que dafa am ay valeurs yu nga xam ne dañ koy incarné mooy li soxna maam Diarra doon wax ñu jox cër mag jox cër kilifa te taxawaay boobu gis naa ko et puis hier ce qui m'a séduit je sais pas si je ne pense pas ñaanuma yàlla mu nekk communication mooy la marche les pieds ça m'a comme tout talibé parce que yow soo demee Touba dootoo sol daal ah, man de ma ko statut pour da ngay da ngay da ngay da ngay laxasaayu da ngay parce que gis nga ni li nga doon xaar ci njiitum réew ca taxawaay ba taxawaay boobu la andi. xam nga nit moom ku ne sa kilifa am donc loolu mooy maintenant nag maintenant nag Touba sera toujours en chantier hmm. mais dafa am ay urgence bon maa maa ñaanoon dem ñu may temps trois mois parce que aussi ndox mi il faut régler la question de l'eau de Touba loolu dafay laaj foofu nag du xaar parce que dañuy waaj màggal d'ici deux d'ici quatre mois trois mois dañuy waaj màggal Touba donc ba mu demee ba toog ci kanamu xalif bi ba wax ca la mu fay wax li mu waroon def mooy conseil des ministres bii di ñëw ñu waxtaani mbirum màggal bi ba ndox mi ñu mën ko solutionner nga xam ni problème du mm. c'est important parce que loolu ay engagement la parce que ñaari ville yi mu dem mooy famille religieuse yi gën a mag parce que ñeneen ñi ñu leen xam naa ni su fa jógee dina dem Kaolack dina dem Ndiassane dina dem feneen ak feneen ah, su jógee Mauritanie parce que la sortie officielle du waaw Mauritanie bi c'est c'est c'est par rapport à des à des coopérations bilatérales yoo xamante ni c'est normal avec la situation de gazière bi nga xam ne moo nekk ci frontière bi donc il faut ñu dem xoolaat ñoom ñaar comment ils vont faire travailler ensemble donc loolu ma ci xam mooy di rafet lu démarché bi di rafetlu comportement yi di wax sénégalais yi nañu ànd ak dal tuuti par rapport à leur déclaration ñenn ñi parce que ñi ci dégg ci bari bitim réew lañ nekk ñu ci dégg man ñi ma ci dégg ñu ci bari ñuy wax taxawaay boobu bitim réew lañ waaw c'est-à-dire aujourd'hui voilà aujourd'hui peut seen marché boobu yàqu na parce que jàpp naa ni sax toog muy dox mi ñoom ñoo ko moomoon ñoom ñoo daan toog ubbi seen toile toog ci whatsapp euh, YouTube bi di wax lu la neex pour mën a toog di am ay vues voilà aujourd'hui le Sénégal dafa dem ci benn pente boo xamante ni il faut ñun ñëpp ñu jàpp ci accompagner le pouvoir en tant que républicain nag en tant que républicain l'accompagner su baaxee ñu ne ko baax na su baaxul ñu ne ko baaxul mais soo ko defee woon nii moo gën parce que yaakaar naa ni foofu lañu ñu war a toll ci Sénégal surtout que il est jeune il a une ambition donte donte jël na jigéen teg fee Eh, donte jël na jigéen teg fee te yaakaar naa dina apporter les corrections nécessaires. Mm-hmm. Euh, nañ ko nañ ko nañu nañu xool. en tout cas daal mu ngi noonu man li ma ci mën a wax mooy li ñëpp wax rek mooy léegi loolu laay tooñ léegi naan leen ndekete damaa faaw Bassirou Diomaye te yëguma ko woon moo tax ma faaw ba ma moom ndax ku nekk sa kilifa nga am waaw ah, te ñun sëriñ bi daf ñoo ñor lool ba moo gisee nag mu dem toog foofu euh, daal di saakonteeg moom ci saa si rek am na leneen lu soppeeku. mais Maria su su toogaloon foofu yar bi dal ci kaw. non c'est xam nga lan moo lan bëgg a expliquer comme ni nit ñi di toogee nii di live di wax di kii am na keneen koo xam ne mu ngi toog ci ci point bi. li ko ci neex mooy le fait que mu toog ak sëñ Mountakha waxtaan reetaan mais le fait que mu toog ak ki nga xam ne moo di Serigne Mbaye Sy mu ñu toog ñu waxtaan dafa neex koo xam ne da nga toog yow loolu nga gëm te ñun Sénégal loolu la ñu gëm loolu mooy suñuy valeur soit on est catholique soit on na fu ñu féetee foo xam ne loolu moo ñu ñor te ku ñu ko defal nag moom li ci des moom après day yomb day glissé dañ lay gën a ñaanal ñu ngi koy ñaanal comme jeune la aussi y a ndox bi mooy priorité bi fay dem chaque année di dem di màggal gis nañ coono nga xam ne nit moom la ñuy def surtout day tombé ak nawet bi Touba bu tawee day inondé inondé kër yu bëri léegi nit ñi dañ ko abandonné waaw xam nga lu ma yitteel nag hmm. te dama koy wax la président de la République hmm. màggal Daaru Salaam léegi mu ñëw oui kii kii ci kii kii ci lu Daaru Salaam. te président de la bëgg loxoom dugg ci màggalu Daaru Salaam. parce que ñun waa Daaru Salaam yéen waa Daaru Salaam. yéen yéen yéen waa Daaru Salaam yéen yéen ci waa Kër Sëñ bi yéen a yor yéen a yor secret xaalis bi kay garaaw. <laughs> waa Daaru Salaam ñoo yor xaalis bi dërëm ak gërëm en tout li ñu mën a wax mooy daal nañu ci waaj li nga wax léegi Adama Fall mooy nañ ko préparé parce que màggal gaa ngi ñëw incha allah après tabaski te li fay nekk toujours tax ñu bëree bëree bëri pour ñu mën a màggal normal dafay métti de même que Tiwaawoon Tivaouane aussi dañoo am problème assainissement boo fay dem chaque année di dem ñun ñuy dem di couvrir dañuy gis ni muy méttee ak koñ nu muy xatee ak yenn coono yi nga xam ne moom lañuy ñuy daj foofu donc bu ñu leen ci mënee jàppale ñu jàppale leen ci bu baax a baax a baax a baax euh, doyen Mamadou Sy Albert Maham Koundoul mooy suñu gan présidente association suqali suñu gox membre de la plateforme pour le respect et la préservation des droits des femmes Mame Diarra Ndiaye Sobel présidente solidarité active co-initiatrice de la plateforme pour le respect et la préservation des droits des femmes Mame Diarra bu muy njëkk ñëw fii ci plateau bi à suñu élection ñu ne ko Mame Diarra est-ce que da ngeen di dugg ci politique bi doyen je parle sous votre contrôle mu ne non ñun dañu ñu lu ñu intéressé mooy élection yi na am élection yi am na les élections se sont tenues wax dëgg yàlla ci ci ci lu bett nit ñi euh, ñu dem ba ci biir nag gis na ñoom tamit ñu toog di xaar ba ñu teg gouvernement bi Mame a daal di bokk ak ñeneen daal di créer la plateforme pour le respect de la préservation la préservation des droits des femmes doyen temps yii ñoom rek la ñuy dégg jigéen ñi. la plateforme euh, dagguma la de plateforme la. Mhm. Eh, ñoom m ñoom Dior Fall Sow ñoom Aminata Touré ñëpp a ngi ci. ñëpp a ngi ci. tous les aînés et les pionniers. les on on on retrouve tout le monde. peut-être jamais tard que <laughs> plutôt tard que jamais. Ouais, euh, on dit. Mm. parce que bon bu ñu doon waxtaan sur la campagne électorale moi j'étais surpris que euh, y avait beaucoup de femmes euh, candidates. Mm. bon et à un moment donné maa ngi doon xalaat pourquoi les candidates femmes du ñu discuter entre ñoom xam xam ku nekk lan ngay proposer pour pour am une bonne vision de de la femme dans le projet. Malheureusement, bon, il n'y a eu qu'Anta qui a été candidate. Euh, mais là, la plateforme me rappelle ce, ce, cette, cette, idée. Ça dit que demain élection. Je pense que les femmes, quand même, ont beaucoup, beaucoup euh, contribué à l'apaisement social et politique. Mm. Elles ont participé aussi, euh, tu parlais tout à centre de, des intellectuels. Mm. Les femmes ont été les sentinelles de la démocratie. Mm. C'est-à-dire, exiger l'élection, je pense que je n'ai pas vu une organisation euh, défendre le principe qu'il faut absolument une élection. Mm -hmm. Jusqu'au bout, jusqu'à la marche de, de, de, de que Arsenio élection. Mm -hmm. Une marche qu'on n'a on a jamais vu autant de monde, autant de discipline, autant de détermination. Mm -hmm. Et ça, ça elle, je pense que même ça a été le déclic. cette marche-là, elle a été le déclic pour dire qu'il faut absolument une, euh, une élection dans, dans, le respect du donc elles ont participé, je crois que ce n'est pas une nouveauté, elles ont Maintenant, euh, la déception, elle, elle, peut se parce que Bougnoua a 25 euh, ministres, 4 femmes. Bon, le, le, rapport est trop inégal. Ce que comparé par rapport à la lutte des femmes donc, dans ngeen am quatre c'est une déception c'est naturel mm. que que que le, les femmes se sentent déçues mm. mais je pense que euh, il faut que la plateforme mène une bataille une bataille utile pour moi c'est-à-dire que élection bi jàll na bon ils veulent gouverner cinq ans ben partir du principe que ils ne peuvent pas gouverner sans la femme C'est ça, il faut que les, les, le mouvement féminin, le leadership féminin, arrive à le mettre dans, comme donnée. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas gouverner 5 ans sans les femmes. Pourquoi Mais parce que euh, il y a une loi quand qui est la loi sur la, la, la parité. Mm -hmm. Il y a les organisations socio-professionnelles. Il y a le mouvement socio-économique des femmes. elles sont à peu près la moitié de la population. Ouais. Mais toutes ces données montrent si tu veux des politiques publiques fiables, mais il faut que tu intègres cette, euh, ce, ce, ce, ce paradigme-là, mmh. le paradigme euh, féminin. Je mm-hmm. crois que, bon, euh, pour man il faut faire pression à deux, à deux niveaux. Mmh. quand même, il y a les quatre euh, femmes ministres. Est-ce mm-hmm. qu'il ne faut pas essayer de de travailler ces ministres-là pour que dans les ministères parce que ça aussi c'est un enjeu c'est-à-dire au moins am ngeen quatre ministères mais dans les quatre ministères là comment faire la promotion des femmes parce que ministères yi am nañu des directions am nañu des secteurs am nañu des activités et moi je je vois par exemple euh, au niveau des jeunes filles de plus en plus elles elles font une formation course so soo demee à l'université par exemple c'est c'est assez fréquent nga gis euh, xale bu jigéen bu am euh, master wala mu am euh, licence am di seeti liggéey mm-hmm. est-ce qu'il faut pas commencer par là mm-hmm. par faire pression sur ces ministères qui sont gérés par les dames pour faire la promotion des jeunes filles okay. mais des, des jeunes filles qualifiées quand même mm-hmm. boo jëlee sport boo jëlee culture boo jëlee la pêche bah, ça, ça peut être un, un exemple, un, un laboratoire. C'est-à-dire les quatre ministères là def pression pour que la, la femme soit représentée euh, au niveau de, de ces ministères. Bon, beneen bataille bi maintenant qui va qui va venir c'est c'est le, le Parlement. Il y aura des élections des législatives. Mais comment la plateforme peut préparer les élections des législatives? Ça, on a on a On s'est battu à la présidentielle. Ce qu'on a eu, bon, on est déçu. Mais les législatives, il faut les préparer pour que au moins la parité soit appliquée pour une fois. Et je pense que loolu c'est une bataille euh, des femmes pour euh, pour le Parlement. bon beneen bataille bi nag c'est assez particulier ñun naa ko sànq. Mhm. c'est-à-dire dans le dans l'imaginaire collectif. ñu nekk tey jii ci nguur gi je ne suis pas sûr qu'ils aient changé de paradigme par rapport à la femme ce que je veux dire c'est que euh, gis nga les hommes ils c'est des pouvoiristes et c'est normal parce que c'est le, le, le patriarcat qui est dominant mais pas le bon Dieu, c'est l'homme. C'est l'homme. Maintenant, maintenant <laughs> comment, faire, comment faire pour que les hommes politiques changent de vision hmm. Moi, moi c'est une question que je me pose. Parce que Niki, euh, bon, les Sonko, les Diomaye, euh, ceux qui sont au gouvernement, là, amna ñu leen yéré yéré, amna ñu ñuy liggéeyé. Hmm. Euh, mais est-ce qu'ils sont conscients de la place de la femme hmm. Est-ce qu'ils sont conscients Et ils nous parlent de... Ah, est-ce qu'il n'y a pas de lieu que ñu def débat débat avec les hommes politiques pour voir euh, bah, quelle quelle doit être la place de la femme dans dans le développement comme ni ñuy waxee sànq sur les religieux là bon on ne prête pas attention honnêtement tu regardes la structuration le fonctionnement du Sénégal que ce mmh. soit la famille la communauté l'activité socio économiques mais kan moo ko yore si c'est pas la la femme C'est ce qu'on disait. Et moi, je, vraiment, c'est une question que je me pose. Est-ce qu'on est conscient que peut-être qu'on est à côté de notre chance mm-hmm. Peut-être. Mais bon, il faudrait discuter que nous euh, savons réellement comment se pose euh, le, le problème et voir quelle, politique. Parce que la rupture, pour moi, elle doit se faire là. On parle Gis nga toutes les idées euh, arriéristes là. Mm-hmm. c'est lié à la façon de percevoir le statut de la femme. c'est ça. suñ ko libéré ah, woon c'est culturel. si on libère euh, notre imaginaire là on libère la femme de tout ce carcan là on peut avancer. mais suñ ko libéré wul je crois que ça va être difficile culturellement de, de rompre avec euh, le, système qu'on a connu jusque là. plateforme baa ngi noonu dégg nga doyen lu mu wax li nga xam ne noonu xëy na même ngeen war a mën a liggéeyee déjà yéen lan moo leen dugal ci plateforme plateforme bi boo gisee ñu taxawal ko hmm. parce que dañu sentir benn faible ci nouveau gouvernement bi hmm. ndax euh, kenn mënul wax rupture di ci génnee jigéen ñi hmm. ndax euh, jigéen ñi dañu am place bu am solo ci société bi mm-hmm. ndax euh, boo jëlee cinquante yoo jël nee naa quarante yi ñoo yor euh, société bi quarante yi femmes yi mm-hmm. jigéen ñi la mm-hmm. kon plateforme bi dafa ñëw ci heure am ndax plateforme bi nekkul loo xamante ni ay parti politique la c'est apolitique parce que le développement communautaire moo ko tax a jóg surtout tudd seen association de voilà suqali suñu gox man sama association euh, maa ngi ko créer en 2008 association suqali sama gox mhm. bon plateforme bi ëmb na beaucoup de structures mhm. ay groupement de femmes ay bàjjanu gox ay relais mhm. ay conseils parce que xam nañ ni fii nga xamante ni fa jëm bu ñu deful alerte mën nañu mettre en rade te dañ fi tegoon benn loi parité euh, président Abdoulaye Wade moo ko fi mettre woon en place euh, gouvernement sortan ñëw def ci liggéey bu am solo jigéen ñi sant seen bopp ci instance yépp mais ñu gis ni euh, gouvernement bi ñëw premier gouvernement ñoom bi ñu teg jigéen ñi dañ ci néew te ñun suñu rôle nekkul rek dañuy nekk société bi pour di mën a di def affaire xumbaay mumbaay ndax ji ak tàccut yooyu en dehors de politique yàlla développement mm-hmm. te ci développement boobu nag si lañ sukkandiku pour mën a wax ak suñu mbokk kilifa yi mm-hmm. pour ñu bàyyi xel jigéen ñi parce que li ñu ci gën a métti mooy bokk na ci ministère de la femme bi nga xamante ni mm-hmm. supprimer nañ euh, kii nañ ko euh, dindi nañ ko ndax ministère de la famille dëgg la famille moo ëmb lépp mais jigéen place am nekku rek ci biir kër gi nekku rek pour gérer xale yi tey instance boo dem jigéen ñi ñoo fa am taxawaay te liñ mën a gérer mu réussir moo moo ëpp solo kon donc ñun dañuy def alerte forme bi yaatu na tey boo duggee ci biir y a plus de vingt cinq mille vingt cinq membres mhm. te ñun ñëpp dañu takku taxaw pour ànd xeex suñu moomeel ci biir réew mi ñu ànd ci nag ak euh, soxna maam jaara doonte defuñu ko loo xamante ni pour kii moo jiite kii ma parce que ki ñëw tey ak ki ñëw démb ñoom ñëpp ñoo yem lu ñu bokk di xeex daal mooy maanaam gouvernement bi ne fi na jox gëdd jigéen ñi na jox gëdd jigéen ñi mm-hmm. parce que tamit dañu gis ni euh, vingt cinq ministres cinq secrétaire d'État mhm. yow nga jël quatre femmes kese teg ci kese kese bi man mi ngi noonu kese <laughs> léegi ñun suñu waxul day mel ni ko ñun suñu suñu taxawaay ci société bi amul njëriñ amul njëriñ moo tax ñu jub takku taxaw xam ni ñun droit bi ñu amoon ba léegi moom lañ fees dañ ko bëgg a dañ ko bëgg a ndax kat ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñoo yor nguur gi du ma ne li leen fal jigéen bokk si kon nañu delloo si xel bu baax a baax xam ne lépp luñ fi mën a teg mm-hmm. nañu dooleel jigéen ñi mm-hmm. te jël jigéen ñi def leen ci instance de décision yi mm-hmm. tout loolu moom moo tax a jóg plateforme bi te vraiment ñu ànd ci nag ak ñu ci war a ànd ak ñëpp yaakaar naa soxna Diarra dina si ñëw ak euh, mémorandum bi nga xamante ni ñu ngi ciy liggéey moom dina ci dikk mais li ñu mën a wax daal mooy. maa ngi ci biir plateforme mi ngi noonu liñ mën a wax daal mooy. association de femmes laa yàqam ci man <laughs> plateforme de femmes man je suis mi ngi noonu ñun daal bëgguñu kuy néewal jigéen. déedéet parce que. <laughs> Mhm. boo ne la développement rek. ëmb na lépp. Mhm. tey boo demee ci tool yi. Mhm. nga dem ci bureau yi. sport bi santé bi. tout foo dem jigéen ñaa ngi fa. secteur informel bi. jaaykatu caaf bi sax. mais mooy secteur mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi ci plateforme bi ndax dañu bëgg mu sentir boppam ci li muy def. loolu moo tax nag ñu jug pour def alerte. Mhm. signe na nag. wane suñu bopp wane suñu bopp pour que ñoom ñu xam ni jigéen ñi nañ leen delloo seen place. yi de nelaw gëmuñu nelaw. gëmuñu ma ngi noonu ma ngi noonu Mame Diarra. <laughs> incha allah balaa may ñëw ci àll ba waaw Adama moom bàyyi ko foofu si kanam. Adama xool ne bi ma xoolee. loolu mooy xam ne kat man moom. waaw en tout cas. soyons objectif. quand nga li doyen wax jigéen jigéen a war a a def waaye waaye ku moom xar bi nga bàyyi buñ moom laa xam nga dafa am benn affaire bu may faral di wax Euh, gis nga le combat euh, pour le la défense des droits des femmes. Euh, que ça soit leurs droits économiques leurs droits sociaux c'est pas un combat des femmes contre les hommes. moi je pense que c'est un combat d'hommes et de femmes épris de la justice sociale. pour régler des inégalités sociales. loolu la war a nekk. képp koo xamante ni jigéen nga wala góor mag wala ndaw nga xamante ni li nga xam ni bëggoo ñu teg la ko yow ci sa bopp. Mhm. bu bëggoo ñu teg ko keneen. Mhm. da si ci war a bokk. Mhm. te ci loolu lañu nekk te loolu moo tax ñu jógee ci aar sunu élection euh, tàbbi ci euh, ci ci ci ci plateforme bi. Euh, parce que aar sunu élection lan la woon c'était une question de. de de défense de droits à la fois et de l'état de droit. jigéen ñi nag amoon si jom lool lool takku si lool lool lool te même avant ak suñu élection sax jigéen ñi déjà defoon nañ euh, bébatoon nañ euh, de bi ñu dégloo bi ñu participer ci yenn audition candidat yi ak juste avant ñuy supprimer élection yi bi ñu dégloo si euh, yenn candidat yi ba pare li ñu wax mooy nañ leen tase mm-hmm. ñun jigéen ñi nga xamante nii dañuy liggéey sur la participation des femmes le développement ñu defar benn document d'orientation jébbal ko candidat yépp ndax li ñu dégg candidat yi di ko wax si wa mbirum jigéen ak xale bu jigéen dafa oyof hmm. bi ñuy mbëbët loolu euh, si la problème euh, kii am élection yi am ñu nekk si loolu pare gis nañ euh, li xew élection yeeg yëpp tout s'est passé très vite. Mm mais euh, xel euh, daloon na euh, parce que dañu bi bi ñu gisee passation bi am lépp am ñuy wax rupture euh, xel daloon na ba ñu gis euh, publication liste gouvernement bi loolu nag surprise la woon muy loo xamante ni si daf ñu alerter parce que fi mu ne nii dañu wax préservation des acquis dafa am des génération de femmes yu fi nekk di xeex ba jigéen commencé di toog place am donte pareegul parce que am na lu bëri Sénégal euh, loo xamante ni war nañ ci liggéey ci wàllu weg jigéen ak ci wàllu valoriser connaissance ak capacité jigéen ak si wàllu respecter jigéen parfois il suffit de travailler au dans un cercle donc pour s'en rendre compte que jigéen ñi lu bëri war nañ ko def si wàllu woowu léegi nag euh, bi ñu commencé ah ñu alerte entre nous wootante téléphone waxtaan ñu ne nañ leen alerté ah léegi ñun dañu nekk ci état boo xamante ni si dafa am ay procédure yoo xam ni bu nit ñi dafa am ni ñuy manifester woo ci lañ dem ci lañ def benn déclaration commune mm-hmm. déclaration bi bu ñu ko defee mën nañ ni ci njëlbéen ga sax ay organisation de femmes lañu woon mais dañu dem ba ubbi ko femme yépp ku bokk organisation ku bokkul organisation femme yi ci gox goxaat yi femme yi ci organisation yi ñi nekk seen bopp organisation ñi liggéey ci organisation internationale yi ñiy liggéey ci part ñiy liggéey ci gouvernement bi ba ci ñu bokk ci parti politique am na hmm. femme yu bari yu nekk Pastef yoo xamante ni tey ñu ngi ci plateforme donc sa veut dire que c'est pas un combat politique nekkuñu fi nit ñi dañuy wax ni yéen da ngeen gaaw ndaxte ñii ñu ngi ñëw matagul sax un mois ngeen commencé mais ñoom tamit dañoo ñëw matagul sax un mois si wàllu jigéen ñu wane seen bopp. donc comme ni ñuy wax am na loo xamante ni il faut euh, couper l'herbe sous les pieds mun naa am du mauvaise fois mais moo tax nag ñu yëkkati sunu baat pour que bu leneen di dem correction am ndax correction weesu dëgg la gouvernement bi teg nañ ko ba bari néewuñu kenn tasal sa gouvernement mais am na yeneen yuy ñëw am na nomination yaa ngi ñëw nañu sóoraale femme yi nga xamante ni si compétence la ñu feese dell monde bi boo génnee femmes sénégalaises yi dañ leen di xëccoo elles sont bilingues elles sont compétentes elles sont focus te loolu je parle que les femmes hautement instruites de mm. niveau académique recherche yoo def tey mënoo see jële jigéen ñi mm-hmm. ñu ngi bind ñu ngi xalaat ñu ngi contribuer mm-hmm. nga jóge foofu nga dem ci gox goxaat yi nga fekk fa ay vrai jàmbaaru fakk tëdd mm-hmm. ñu yor kër yi nag di daw dépense boot njaboot gi boot société bi yor tool yi yor waañ bi femme yooyu euh, nañ leen nañ leen sóoraale ñi nekk ci culture euh, agriculture bi ñu nekk ci élevage bi ñu nekk ci transformation produit halieutique yi ñu nekk ci transformation euh, produit agricoles yi ak les autres produits euh, dérivés kon dëkk bi femmes yi dañ kaa yor donc mënuñu fi def dara loo xamante ni dañuy euh, féetale jigéen ginnaaw loolu moo tax ñu génne une première déclaration aujourd'hui bu nekk plus de huit cents signataires toutes catégories de femmes et d'hommes confondues parce que am na tamit ay jigéen ñu si nekk pour que ñu wane suñu jàqare beneen étape bi mooy bu fekkente ni yow dangaa soulever problème problème boobu participer ci liy résoudre li koy résoudre bu ko defee dinañ joxe benn mémorandum boo xamante ni c'est des orientations xeex bi lii rek lañ si namm nammuñu si leneen donc bu ko defee euh, dañuy wax ni euh, gouvernement bi ana femme compétent yi mais est-ce que mën nañ ma wax ni Sénégal gii ñu fi am femme compétente. Ah, parti Pastef boobu sax xanaa mënuñu ni wan ni mënuñu fee am plus de quatre femmes compétentes ñi fi jël de ñi ñu jël fan leen eh, kenn dénigré wu leen parce que xam nañ nan lañ jaar d'autant plus que la le ah, l'appareil politique euh, qui est parti à la présidentielle c'est pas seulement un parti politique. non non c'est une coalition. c'est une coalition yooyu am na jigéen ñoo xam ni foo teg góor ni ko defal benn di nga gis jigéen bu fa toog def fukk. te coow du jub. jigéen ñi nekkewuñu fi Mumbai. te pour ñëw si affaire Mumbai boobu noonu mais qui a transformé les femmes en machine d'applaudissement mm. ce sont les partis politiques tey bu ñu nee waxee parité au lieu que dañu wut. de femme de qualité yoo xam ni bu ñu taxawee amba euh, bu ñu taxawee fële bu ñu taxawee euh, assemblée national mun fa défendre des politique publique mun orienter représenter fa peuple bi partie yi ñooy def exprès teg ci assemblée bi ay jigéen ñu leen di xeexal mm-hmm. ak ay jigéen ñu ah, ah, euh, leen di leen di saagaal ak ay jigéen yoo xam ne wu ñu fi benn valeur ajoutée mm. loolu tamit dëgg la boo xamante nii dañ ko war a waxtaane donc loolu lépp nag dafa war a bokk ci rupture bi te rupture bi du question gouvernement bi rek ñëpp c'est ça doit une chaîne ñëpp da si war a jàpp citoyen bi foo nekk da si war a jàpp concernant mm-hmm. le problème avec le ministère de la femme mm-hmm. maram ñëwoon na si sànq yow jël nga ministère de la femme nga jënd yi fa nekk def ko ministère de la famille et des solidarités solidarité ku nekk xam ne lan lay signifier si Sénégal c'est des actions sociales yow bala ngay may chaque jour jën nit da nga jàngal nu muy nappee mhm. yaa am na benn encadrement euh, social boo xamante ni ça maintient les population dans un état de dépendance et de pauvreté mhm. il faut créer des richesses et créer des activités économiques pérennes donc loolu aussi benn loo xamante ni junj nañ ko nga ñëw ci ministère de la famille mais jigéen c'est vrai la femme est le socle de la famille Euh, entre autres parce que tamit jigéen ñi ñu ngi ci industrie bi jigéen ñi ñu ngi ci commerce bi jigéen ñi ñu ngi ci entrepreneuriat bi jigéen ñi ñu ngi ci euh, plateforme scientifique yi et ainsi de suite ainsi de suite donc aujourd'hui bu fekkente ni da ngaa supprimer ministère de la femme ñoom ñoo tax lu tax nga supprimer ko parce que ñoom dañu am seen orientation politique et stratégique mm-hmm. ñu leen koy nungul mais nañ teg ci nañ teg si loxo loxo jigéen yi lu leer supprimer supprimer nañ ministère de la femme de façon transversale mmh. comment ils vont intégrer euh, les politiques de de de les politiques spécifiquement euh, conformes aux besoins des femmes et des filles ñu koy wax gender mainstreaming mhm. parce que bu ñu demee ministre du commerce na ana naka la ko femmes yi euh, di di di bokk bu ñu demee ministre du des finances naka la ñuy mën a defee une budgétisation sensible au genre mm-hmm. te en parlant de genre nous on fait on évoque les besoins spécifiques des femmes et des filles ndax loolu moo ñu yor mm-hmm. donc c'est un grand chantier boo xamante ni on invite vraiment ce gouvernement à ne pas faire moins que leurs prédécesseurs que leurs prédécesseurs ça c'est le thème du jour alors bon bon la plaidoirie les plaidoiries sont fortes commençant par. et légitime. oui légitime parce que dañu porte ay combat ñoom jigéen ñi te en général ba yàlla may leen une parité au niveau des postes électifs ça il faut applaudir mm-hmm. parce que euh, combat la boo xamante ni de longue haleine ba agsi fii tey maintenant c'est un bu war a continuer pour ñu mën a am. une parité au niveau des postes nominatifs n'est-ce pas parce que aussi euh, jigéen am na solo ci réew ci réew donte man ànduma ak ñoom nag. am na am na solo ci réew lool lool parce que li ñuy kaas dafa bari te d'habitude su seen intérêt jógee rek lañuy kaas parce que bon. Euh, ah waaw parce que jàpp naa ni peut-être euh, waroon nañ leen dégg ci yeneen yeneen yeneen domaine yoo xamante ni. amoon na fi situation boo xamante ni y' a des y' a des femmes violées par ci par là y' a des dégguñu leen ci quoi dégguñu leen ci yenn. yow yaa leen déggul parce que yow. tu t'intéresses à la politique man man dégguma leen ci quoi man dégguma leen ci personnellement. maintenant maintenant maintenant mais doyen dañ may dañ may sob fi mu ne nii doyen. doyen ñu ngi may sob neel neel maman Dior Sarr maa ngi koy nuyu. nee na mu ngi leen nuyu nee vous êtes formidable. voilà maintenant maintenant. noté nga loolu. le gouvernement là. Mm. a montré toutes ses limites. ah bon. quatre femmes benn jeune. loolu mooy lim kan mooy jeune bi. non jeune mooy ki am moins de trente cinq non moins de trente cinq soo demee pipa non non soo demee pipa soo demee pipa dafa am âge bu ñu koy limité et les jeunes sont en train de se battre di ngeen di xeexee ah. mooy l'emploi des jeunes. non pas au-delà de l'emploi des jeunes. non boo demee par boobu nga wax je suis d'accord parce que boo demee pour demander. li ah. que au niveau des des listes des élections des postes ñu am ci 30 pour cent. ok mais gouvernement bi amuñu 30 pour cent benn jeune la ñu te mun nañ wax ni. ñoom jeunesse bi ñoo leen porté avec les femmes donc limite am na limite am na mais puisque ñu ngi doog a toog peut-être ñoom suñu ñuy réfléchir c'est pas par rapport à des trucs mais ci compétence nañ ko teg peut-être prochain remaniement dina jël en charge ces questions mais il faut yéen ngeen continuer combat bi pour dire vrai par rapport au poste nominatif mais pour ngeen mën a am loolu il faut que les femmes acceptent d'aller sa former parce que aussi fi mu ne nii suñu jëlee ci école bi yéen a ci ëpp yéenay raw yéenay jël raaya fi mu ne nii présentement mais dans le temps jigéen ñi góor ñi ñoo ëppoon ñi daan génn di am yenn position yi ak yenn taxawaay yi parce que dañ koy wax rek ni nga xam ne ñoo taxawa taxawaa position diplôme ak neneen góor ñi ñoo ci ëpp parce que jigéen d'habitude suñu tradition moo doon wax jigéen dafa war a toog ci kër ga sëy def lii def lii parce que amoon nay temps mariage bi sax da daan yàq jàngu jigéen parce que suñu société bi noonu lañ ko muulee tey dem nañ ba jigéen ñi di xeex ba ngeen am ay akki nag yu bari bu leen ko kenn xeebal man de su ma sañoon ci gouvernement bi ngeen am ci huit ba neuf mais day fekk ñu am taxawaay bi taxawaayu jigéen mais aussi jigéen ñi aussi dañu war a lëkkaloo gën a booloo pour seen combat yi bu mën a dem assemblée nationale am ngeen fa parité au niveau des maires yi am ngeen fa parité mais mu des poste nominatif yi et ça lii day tax ngeen war a mën a door benn combat boo xamante ni par rapport au poste nominatif mais nag peut-être li ma ciy xaw a jaaxal mooy su jigéen ñi jógee di xeex jeunes yi jóg di xeex pour ñoom it ñu am une bonne représentativité dans le gouvernement naka lay deme parce que aussi les jeunes sont en train sa se battre les jeunes sont en train ñoom dañu soxla 30 pour cent dans les postes de nomination yéen da ngeen am parité mais ñoom trente pour cent la ñu laaj. mais la parité doit les domaines. non non pour les postes électifs rek la loolu nag combat bu ñu war a porter la ñoom pour ñu mën a ko am dans les postes nominatifs te combat boobu ñun ñëpp dañ ci war a jàpp. mais du ngeen ci jàpp nag parce que yow déjà tu parles de formation les les femmes sont les femmes sont qualifiées. elles sont qualifiées. xam nga li ma ci xam daal mooy Adama Fall bu ñu waxee quatre personnes quatre quatre jigéen dans le gouvernement et on nous parle de compétence on nous parle de formation mais quand même. léegi yow jigéen jigéen ñi ne ci. li ma ci xam daal mooy le développement de ce pays là doit passer impérativement par les femmes. du oh, yéen a koy def. non déglu rek man li ma gëm parce que li ma gis la. mais loolu nga gëm mais yow doo ko def yow doo yow bu doon dinaa nommer femme premier ministre maintenant maintenant maintenant doyen wax na ko dans le combat mooy au-delà des de ministères y a direction y et je pense que peut-être ñoom mun nañu apporter les corrections là-bas pour qu'on puisse avoir beaucoup plus de femmes directrices général beaucoup plus de femmes parce que bëriwuloon du temps du du régent du régime précédent ils étaient pas waaw amuñu woon parité bi am amuñu woon parité bi je pense que fii dinañ mën a apporter la correction les corrections nécessaires pour que jigéen ñi gën a présent hmm. au niveau des des sphères de décision war a gën a mën a jël pouvoir bi parce que xam nga yàgg nañ koo wax fii ci ci plateau yi jigéen soo ko joxee mën na développer mën na soxali parce que jigéen ñi ñoo yor kër yi hmm. ñoo yor entreprise yi fi gën a dox hmm. jigéen ñi ñoo nekk ci bopp bi donc war nañ mën le war nañ leen mën a essayer waaw pour la tête de ce pays là on l'a foofu aussi dama leen ci. non foofu moom ñëpp ñëpp man sax ngàññi naa. foofu tamit dama ciy ngàññi jigéen ñi. waroon nañ mën a kii parce que soo def ça dépend xam temps dafa am benn affaire boo xam ne na ku may envoyé message di ma ma vous les femmes waroon ngeen mën a jàppale Anta Babacar Ngom mais ñun jàppale wu ñu woon nit parce que jigéen la wala kii góor la wala kii lii la def c'est selon un programme oui est-ce que ce qu'elle proposait aux femmes xëy na arrange il faut ñu dindi parce que loolu xamalan la mooy seen fuite de responsabilité dañoo manqué argument moo tax ñuy wax loolu waaw d'accord ñun koy naa waroon ngeen bëgg ñun góor lu ñu wax rek baax non yéen góor ñi kese y a des femmes wax loolu ñëpp ñiy wax loolu yëpp dañoo manqué argument c'est pas un mooy Maria on a vu des femmes chefs d'entreprise comme suñu tele bi ñu toog on a vu des femmes qui sont dans le développement aujourd'hui le ministère de la famille le ministre la madame la ministre de la famille des solidarités ci yéen la bokk ci li ma jot comme information. ci ñan la bokk. ci femme entrepreneur yi la bokk. ci plateforme bi la bokk. waaw ci femme entrepreneur yi la bokk affaire du dëgg. affaire la bokk kooku waaw affaire ñu ngi ci biir plateforme. war na mën a xam coono yi ba ñu mën ci dugal jigéen ñi ci li def au niveau des ministères ministère y a des parce que yaakaar naa ne découpage administratif yi war nañ ko mën a def pour xam yan direction mooy bokk foofu ak yan direction yoo xamante ne jigéen ñi donc c' est un combat boo xamante ni warul yem rek ci ci fii ci ay déclaration wala ci mémorandum dañu jël exemple rek combat longue haleine bi nga xam ni jigéen ñi def nañ ko ba ñu mën a am parité au poste nominatif électif maintenant il faut porter ce combat là pour ñu mën a am une parité même su nekkee amuñu une parité boo xamante ni cinquante cinquante la au poste du ngeen mun a am une parité boo xamante ni di ngeen am moom moom il faut mu ñëw yaay moom il faut mu ñëw jàkkaarloo non li ñu li ñu bëgg a wax c'est-à-dire cest xam nga nous sommes dans une société xam nga xam nga problème bi mooy ñu ngi koy wax sànq ci le comportement du président de la République vers les chefs religieux suñu société moo mel noonu ñoo am yaakaar kon ne mun nañ mun nañ mën na mën na retourné wu changé donc war na mën na retourné wu ba ñu mun a dem vers une une une bonne présence des femmes dans l'attelage gouvernemental une bonne présence des femmes dans les positions de décision pour loolu am nag il faut ngeen def benn say. mbool def mbooloo. di yëkkatee ndoo di doo ndoo. Mhm. nga xam ne fu ñu laal jigéen jigéen ñëpp jóg taxaw. ñëpp jógandoo ñëpp jógandoo pour porter combat bi. d'accord soo leen ko deful yaakaar naa ne lii ngeen di xeex. parce que nag. du jaar góor ñi am nañ fulla. d'accord am nañ xeexuñoo góor ñi Adama Fall xeexuñoo góor ñi problème bi mooy xeexuñu ak góor ñi. maintenant il faut régler une question c'est la question du genre parce que sénégalais yi comprendre. man peut-être mën naa comprendre. non yow comprendre loo ko sax yow. bu Birama nekkoon tey bu Birama nekkoon fii tey fii lañu taxaw taxaw ci genre. Euh, on a un problème quand on parle du genre c'est la prise en compte des besoins spécifiques des femmes des hommes des filles et des garçons. Mhm. c'est bien défini. gis nga li nga wax damaa bëgg nga bantu ko ci olof ba askan bi déglu la. léegi nag muy pour ñu mën a comprendre parce que am na ñu comprendre ci li ñuy wax ci genre. mais xam na lépp loo xamante nii xam nga dëkk bi euh, dafa am couche sociale yoo xam ni ñoo ko lal. Mhm. te ku si nekk li nga soxla bokkul ak li sa moroom soxla. loolu parfois bu fekkente ni yow dañu ñëw rek définir ay politique publique ni pour la population uniformiser ko. képp ñëpp xam nañ ni nit ñi dañoo ute waaw ndegam man ak sama moroomu jigéen bi toog sax am na lu ñu utali asantuma laa góor ak jigéen wala mag ak ndaw hmm. moo tax bi ñu waxee genre ici ci Sénégal gi en tout cas bu ñu fi wax genre mooy li nga xamante ni góor daf ko soxla en tant que góor hmm. jigéen soxla ko en tant que jigéen mag soxla ko en tant que mag ndaw soxla ko en tant que euh, ndaw fi garçon xale bu góor xale bu jigéen léegi si loolu te loolu dafa ñuy mën vers des politiques d'égalité et mhm. mooy loo xamante ni non seulement nit ñi seen àq ñu jox leen ko si niñ leen ko war a joxe sans am xàjj ak seen mhm. mais tey ji boo tegee ñaari nit boo bëggee ñun ñaar ñu ñu ñu yërnu miir bi yow boo taxawee di di di di mesurer deux mètres euh, mur bi di mesurer un mètre cinquante mun nga taxaw xool mur bi mm-hmm. waaye ki nga xamante ni moom moyen deux mètres lay lay xool il faut ñu tegal ko échelle wala ñu tegal ko banc mu xool miir bi mm-hmm. loolu mooy équité mm-hmm. léegi nag si loolu noonu am na politique yoo xam ne booba léegi ñu ngi si di si dox donc nit ñi bu ñu dëkkaloo nit ñi aussi foo xam ne dëkkaluñu fa wala ñu def seen xel loo xamante ni sax nekku sax c'est un faux débat qui veut accuser son qui veut tuer son chien l'accuse de rage mais boo waxee ak sunu maman yi nga xam ni ñoo nekk ci gox goxaat yi da ngay xam ni ñii kenn gënu leen a féministe hmm. man nga wax ak ku mel ni sama jëkkër wala sama rakk bu góor nga xam ni kenn mënul kenn gënu leen a féministe kenn gënu leen a nekk jullit kenn gënu leen a nekk sénégalais mais dañoo nekk nit ñoo xamante nii dañoo jox ak jigéen ak yelleefu jigéen ba hmm. pare di jàppale lépp loo xamante nii dafay jëmale jigéen kanam maa xam xaar ma dem si doyen doyen vous avez le bonjour de Bassirou Diouf sama papa ji mu ngi lay nuyu baax a baax ñu jaax a baax nee na il faut il ne faut pas oublier que ce sont les ce sont toujours accompagné les merci très bien n'est-ce euh, que problème bi euh, c'est c'est un problème de vision cest à que ñu ngi ci euh, gouvernement de rupture bah rupture bi aussi euh, il faut comprendre pourquoi la réaction des femmes euh, elle est massive parce que su su rupture naree am dafa war a jaar ci la question de la femme mm-hmm. c'est, ça le, le problème qui est posé c'est boo supprimer euh, femme nga def euh, la famille tu es suspect déjà dans ta volonté de de rompre mm. parce que fi fi ngay rompre c'est pas au niveau de l'appellation famille c'est au niveau de l'appellation femme et, et je crois que loolu laaj na quand euh, nit ñi débattre ba gën a comprendre c'est pas que jigéen yi dañuy xeex góor wala dañuy xeex xale wala dañuy xeex mag non c'est une question, Dior a, a, raison, je, je crois, mm -hmm. c'est une question de justice sociale. C'est-à-dire que le constat est que la femme, est marginalisée. Mm pas elle qui gouverne, on gouverne à sa place. Mm Loolu moo indi loi de la parité c'est-à-dire que bu ñuy dem élection soo tege góor nga teg jigéen. Mhm. Ça c'est de la justice sociale. Mhm. Mais c'est la même chose pour le gouvernement. un gouvernement de vingt cinq personnes mais mënul am quatre quatre femmes. non c'est une question de logique. Mm-hmm. donc euh, euh, approche boobu pour man il faut que les gens débattent euh, maintenant sur les euh, les profils honnêtement moi j'ai des problèmes avec euh, avec euh, non avec les gens qui qui voient pas la réalité je prends l'université l'enseignement supérieur. Oui. les femmes compétentes dans les domaines scientifiques. Mm-hmm. il n'y a pas de photo avec les hommes. tout à fait les domaines scientifiques c'est les femmes c'est le euh, oui, qui excellent qui mm-hmm. Mm-hmm. ne gouvernent pas nos universités on ne fait pas confiance pour diriger les rectorats pour diriger les facultés pour mm-hmm. diriger les départements parce que c'est des femmes et c'est des gens qui ont étudié 15 ans ëpp la expérience ëpp la xam parce que simplement elle a un statut de femme ben du c'est l'enseignement supérieur. Mais quand tu prends la base, euh, le, le, le, les ministères là, le ministère de Soro et Bouba, bah, les femmes ne dirigent pas les ministères du tout. De souveraineté surtout. De souveraineté, on n'y pense même pas. Ça définit du cas, c'est le ministère de la famille. À part Abdoulaye Wade, le président Meksa, Oui, non, mais, mais ça, ils ont essayé. Wade a, a changé. Macky a changé. Mm-hmm. Mais lu problème de Diomaye, c'est que c'est lui qui dit qu'il veut la rupture. Mm-hmm. Mm-hmm. donc rupture bi il faut soit mu nangu mu def ko wala il faut l'obliger à le faire mmh. c'est ça que les Sénégalais demandent les Sénégalais non l'ont pas élu parce que c'est Diomaye non c'est parce que il a appelé à la rupture parce que nit ñi ma jigéen ñi mënoon nañu war ah bon kat la ñu am nañ ci doylu sant yàlla dem suñu non ils te disent 4 c'est bon, mais on n'en veut pas que ça. Donc il faut une pression pour que gouvernement bi change mentalité pour man c'est une de mentalité. mentalité. Euh, peut-être qu'il y a eu des erreurs quand même. bon ay be yu bees la ñu xamuñu bu baax a baax le mouvement féminin ça aussi il faut le dire le PASTEF ne connaît pas du tout du tout le mouvement féminin son son histoire il n'a pas d'ancrage mais c'est une coalition comment mais c'est une coalition qui a une qui a, qui oui, c'est une, co ñoom ils aussi il y a des dames comme Aminata Touré il y a il y a, y a Amsatou Sow Sidibé oui ça mais ils ne sont pas imprégnés mouvement féminin ouais. donc pour que ñoom Sonko et Diomaye toog seen biro xalaat jigéen mhm. bah ils vont penser peut-être cinq hommes <laughs> c'est c'est ça la réalité du du pouvoir hein. c'est moi je comprends que ñu dal jël le 4 mais c'est pas suffisant mmh. donc il faut faire pression pour que euh, fi ma bëggoon daanal c'est c'est les politiques publiques man moom problème mmh. c'est pourquoi pourquoi nos politiques publiques ne marchent pas mm-hmm. pourquoi il y a cette corruption là pour pourquoi il y a cette manipulation là mm-hmm. est-ce que si on mettait les femmes au cœur de l'État est-ce que ça ne va pas changer la manière de gouverner la manière de gérer la manière de communiquer mmh. on sait gérer est-ce qu'il n'y a pas besoin de ce leadership là pour rompre mmh. ba man foofu honnêtement c'est là que j'attends le mouvement féminin ça mmh. montre aux gens que on doit changer de paradigme on doit changer que que par exemple je te dis sànq les ministères yu ñu am moi, honnêtement, alors, je, je, je, je, discute beaucoup avec les militants de PASTEF, euh, les filles là. Mm. Mais yi ma ci gis pendant les quatre cinq dernières années dañu dañu dem jàngi def licence. am master mm-hmm. mais dañu ñefe ci PASTEF quatre ans cinq ans. maa ngi daje ak ñoom xaw je les connais pas. Mm. mais comme xam nañu euh, dans les espaces ma discute. mais dañu am formation. Mm-hmm. mais ñooñu dañu xeex. pour mm. que le projet de PASTEF triomphe. Mm-hmm. mais c'est pas normal que ces filles-là soient euh, écartées. ay Khadija Mahécor yàlla. Euh, mais déjà mère boobu sax tane mais y a d'autres. mais y en a y en a ñoo xam ne c'est des c'est c'est des leaders. c'est des femmes yoo xam ne ñoom ñoo jël seen courage à deux-mains ñii dañoo dem jàngi def formation ñii elles sont dans le secteur informel donc moo tax li ma doon wax sànq moom la Dani di waxaat léegi ne ma tu as parfaitement raison le leadership féminin c'est pas un combat wuñ ko ci suñu bopp bi fii Sénégal du ñu avancer. il faut góor ñi xam ne le gars du Pastef s'ils font un travail sérieux par parti allié ils vont se rendre compte par exemple qu'il y a des filles qui sont formées. qui ont de l'expérience. c'est ça comment les insérer dans les ministères qu'ils gèrent. Mm-hmm. mais beneen euh, dimension bi c'est que le chef du gouvernement Ousmane Sonko il doit aller vers ces plateformes là. Mm-hmm. c'est mm-hmm. le message là il est adressé aujourd'hui à Ousmane Sonko pas au président. C'est Sonko dans son équipe qui doit aller travailler avec le leader féminin. Mmh. Parce que li may ragal s'ils font l'erreur de laisser les gens continuer à se lamenter c'est des frustrations. Mmh. nga li nga wax. Mmh. la frustration des femmes des jeunes de l'informel. dans six mois dans six mois. c'est ça gouvernement. ça qui a permis et euh, donc ils sont des alertes. tout à fait ils doivent pas. il y avait les euh, menuisiers là il y hmm. mais on a reçu ici euh, tu te les artisans du Pastef. du Pastef. Et je leur demandais mais, mais man c'était bizarre mais c'était mais mais il y a aussi des artisans des autres partis et cetera. mais il y a ces artisans là mais ces artisans là ils attendent quelque chose du ministère. mais soo fa demul comment tu vas les intégrer dans ta politique publique. tout à fait. li des bëreetul maanaam. <laughs> li des bëreetul. en parlant artisan sax. Mhm. Euh, di nuyuwaale sama mbokk artisan yi. parce que membre laa ci collectif des artisans. waaw di wax ni. damay ñëw revenir tuuti ci aadama sànq li mu waxoon ci jeunes yi parce que tey bu ñu nee femme bàyyiwul kenn. jeune femme jeune fille. Mhm. ba ci bébé bi doog a hmm. parce que tey jeunes yi mun nañ porter seen combat mën na ko ci nouveau gouvernement mais ñun suñu combat mooy jigéen ñi ak jeune fille yi nañ leen jox seen ak ak seen yelleef hmm. tey boo ñëwee ci euh, li nga xamante ni moom mooy dal suñu doomu jigéen ñi mooy xale jigéen ñi comme violence faite aux filles aux femmes tey plateforme bi am na ay euh, juriste ñëpp ci biir dañoom ñoom euh, jamono yee ci gannaaw amoon nañ fi taxawaay bu am solo am na suñu ay prédécesseurs yoo xam ne ñu ngi woon ci plateau yi di defendre cause yooyu kon donc ñun suñu combat bi dañuy wax femme mais jeune fille yi ñu ngi ci biir ndax ñu ngi xeex li nga xamante ni moom mooy euh, àq xale yu jigéen ñi donc lu ñu mën a wax rek mooy maanaam euh, plateforme bi dafa jug pour ñu joxaat gëdd jigéen ñu delloo leen seen gëdd ñun loolu la ñuy wax parce que gis nañ ni néew nañ te bu ñu noppee mun na ëpp loxo il faut que ñu def alerte pour suñu mbokku jigéen yi ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñoo yor parti seen parti am na ay ñoo xamante ni jigéen yi nekk seen biir mais am na ñu ci am compétence mm. ñooñu war nañ leen a mën a xajal place ci biir tey boo jëlee tey le directeur di cabinet du président mhm. Mary Teuw Niane nekkoon na fi ministre de l'enseignement supérieur si régime bi passé mais amoon na fa taxawaay bu am solo danaan jël jigéen ñi femmes yi waxuma les jeunes filles lee femmes di leen def ay formation professionnelle mu defoon fa liggéey bu am solo kon loolu rek moom bu ñëwee bokk ci gouvernement war na am taxawaay ci jigéen ñi kon Marie euh, vraiment ñun plateforme bi daal dañ ko teg pour wax ni nañu delloo jigéen place am ndax mënuñu jël gouvernement bi passé ñu jël vingt cinq ministères cinq secrétariats d'État ñu ne quatre femmes loolu néew na lool te xam nañ ñi jigéen ñi ci bokk tey ku mel ni tey madame Mimi Touré Aïda Mbodj ñoom ñi ngi ci biir ay jigéen lañ mënoon nañ défendre cause boobu mais peut-être xëy na seen position du leen ko mais mais ñun en tant que femme de développement ñu nekk ci biir dinan wax suñu mbokku jigéen ñu am taxawaay ñu ànd booloo takk nekk benn ñu xam ni kat sans les femmes du ñu dem te ñu ngi jëm ci ay séance élection législative yaa ngi fiy ñëw te vraiment tey boo demee ensemble gis nañ ni jigéen ñi am nañ fa taxawaay kon donc ñun ñu ngi ubbi suñuy bët di xool di leen ah. bàyyi xel nag di xaar ndax euh, régime yi fi jaar yëpp vraiment dañu dooleel jigéen ba jigéen fees dell seen place te ministère de la femme aussi bëgg nañ ministre le nouveau ministre bi fi nekk ni actuel ministre de la femme de la famille et du genre mu delloo si xelam mi ngi amatul mi ngi noonu mu delloo si ko parce que ministre de la famille loolu dafa simple dafa yaatu lu nekk ci direct solidarité solidarité man moom ci waaw waaw bi par rapport au waaw jigéen ñi bi euh, wax leadership féminin et tout donc. am nañ ci moom yaakaar am nañ ci moom yaakaar mais li nekk maire nekkul état. problème te moom mi ngi ci plateforme bi te am nañ yaakaar dina ci bàyyi xel. am nañ ci moom yaakaar daal euh, Mame Diarra daf ñuy mbokk di Euh, nañu jël jigéen ñi former leen pour ñu mën dugg ci gouvernement bi. Mm. mais moi je pense que Sénégal fi mu toll ñuy ñuy ñuy ñuy ñuy toog naan dañuy former jigéen pour ñu mën a dugg ci gouvernement bi c'est grave parce que weesu nañ foofu en termes de compétence de formation. boo génnee fukki góor génne fukki jigéen wala boo génnee fukki góor tey génne fanweeri jigéen. donte en terme tey tey. tey jii boo ñëwoon ci plateforme bi def nañ profilage sax des femmes au Sénégal qui sont ici et au niveau international foo génne fukki góor boo jëlee ministère de l'éducation nga génne fukki góor génne fanweeri jigéen nga jël ministère de l'industrie génne jël fukki góor génne fanweeri jigéen nga jël ministre de l'urbanisation mais la première femme architecte du Sénégal tey boo ko jëlee fii ñu koy wax Annie kan moo ko mun a liggéey si euh, si si si si wàllu euh, kii euh, architecture aménagement non c'est au-delà de du ñëw rek defaral la sa kër mais j'ai rarement vu des personnes euh, qui s'intéressent autant que à l'aménagement urbain et même euh, dans les autres pays et à la patrimoine dem ay Fuuta dem fépp di xool l'aménagement territorial donc jigéen ñi ñu ngi fa tey jii mu am jigéen ñoo xamante ni ay astrologue lañ di briller euh, di briller euh, si euh, kii euh, sur la scène inter internationale nga dem sur la scène internationale nga dem Banque mondiale dem les Nations Unies dem FMI dem dans les organisations internationales sénégalaises yi ñoo fa nekk di briller foofu sori na demal université Cheikh Anta Diop nga dégg jigéen ñi ñu analyser wax ak ñu ñuy jàngale avec consistance et une grande concentration ak fulla ak fayda nga dem dans les département scientifiques c'est la même chose donc mënuñu ni jigéen fii ci Sénégal compétence dafa manqué donte y a beaucoup de choses à faire sur l'éducation des fii parce que Sénégal dañu mën bërit def nañ campagne bu vaste sur la scolarisation de fii jigéen ñëpp dem école mais accompagner wuñu logistique bi nga xamante ni ci gox-goxaat yi mooy tax xale yu jigéen ñi toog école mooy defar defar ay école ci village yi ba nga xamante ni xale bu jigéen bi bu jugee village x di dem village y di jàngi sécurité am du nekk en jeu defar euh, raccorder euh, kii bien euh, les écoles en eau potable des toilettes salubres ba nga xamante ni xale bi bu tollee ci gis baax Euh, dina nekk ci confort boo xam ne euh, di du tax mu toog seen kër ni bëgguma dem école ndax école amul ndox parce que yooyu yëpp dafa nekk ci loo xamante ni ci ci liy freiné jàngu xale ci la bokk ñu ñëwaat ci mariage précoce bi te loolu lépp dafay tax ñu war a xoolaat code de la famille bi le chantier est très vaste et très complexe loolu lépp voilà. mais non violence bi parce que moom li ñu accusé moo bëri. waaw donc euh, si si violence bi aussi juste wax la ni tey jii euh, criminalisation viol bu tollee fii c'est parce que euh, organisation jigéen ñi dañ si liggéey te ba léegi arrêté wuñu donc jigéen ñi tooguñu ba tey rek ñu jug di di kaas. sera avec plaisir comme Birama nekk fi mu ne nii wax dëgg yàlla semaine bi dem na rek liggéey <laughs> ñoo def lu leen neex merci à la régie merci à tous on se retrouve demain inchallah à partir de 11h